ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yi ñëpp dañ koy defee saa su nekk waa Safina ñoo leen di bégal saa su nekk àndandoo ak yéen tey ñi ñëw ba yëmbal seet si koo xamante ne kenn la si askan wi kenn la si Sénégal duñ ko présenté kenn yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ko rawatina jeunesse bi ngir bégal leen na tax nañ ñu jógee Safina daw si ba yëmbal ngi seet si ko kooku mooy kan kooku mooy Oustaz euh, Modou Fall dañ koy nuyu di ko ziar euh, ginnaaw bi ñu ko nuyoo dañ koy bàyyi mu nuyu askan bi Oustaz ñu ngi lay nuyu waaw kay salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mboolem soppe boo xam ne yaa ngi béggee Safina FM di la nuyu di nuyu sunu caméraman bi di ñaan yàlla émission bi yàlla nañ ko def ci jàmm salaam. amiin oustaz ñu ngi lay ñaanal yow it a jàmm te am contentement bu baax oustaz nga nekk oustaz boo xamante ne kenn du ko présenté waa Sénégal muy oustaz Modou Fall ni ma leen ko waxee ñëpp xam nañ ko jeunesse bi ñëpp ko xam macha allah ñu koy ñaanal yàlla rek a bu gudd ak sutura waaye oustaz tey waa Safina ñoo la seet si ngir waxtaan ak yow ko si li nga xamante ne moom mooy sëy yaakaar naa ne bu ñu nee yenn saay nga ñaax ñu ñaax jeunesse bi si wàllu sëy waaye suñu première question ginaa nu yi mooy oustaz dañoo seetlu ne léegi sëy dafa xaw a am retard tuuti si jeunesse bi maanaam euh, tangu yéex yéex di takk di sëy bi ana lan moo ko waral. Euh, li ko waral lenn rek la mooy góor ñi ñoo ñemeetul responsable jëlatuñu seen responsabilité yi ñu war a jël jigéen ñi itam ñu ci bari déception tax na bëggatuñoo sëy waaye ak lu mën a xew ñaari yépp. jarul xool li am solo mooy nanu xam ne yàllaa ko santaane mu nekk loo xamante ni bi itam jaamu yàlla la yàlla xamoon na ni góor ak jigéen ku ci nekk danga nga toll moment boo xamante ni bi ku ci nekk war ngaa fas kenn maanaam jigéen war naa dem sëy ji góor war naa dem denc soxna ñàkk sëy nag dafay delloo société gannaaw parce que Seydina Muhammad daf ni woon takkante leen jur ay njaboot ndax bu ëllëgee man Seyduna Muhammad damay tiitaru ci yeneen yonent yi di leen wax ni sama xeet ñoo ëpp seen xeet kon yaakaar naa képp koo xamante ne bii fas nga yéene ëllëg bu yonent bi di tiitaru ni ñii sama njaboot lanu nga yëkkati sa loxo ne mankat kat woon naa ca ñeenti soxna wala mankat takkoon naa ñetti soxna am naa ca ay njaboot loolu jullit bu nekk war na koo tiitaroo mais tey bu fekkente ne bii dem nga war a dem nga ba war a takk soxna ñemewoo takk. parce que yaa ngi ragal am na ñu bari ñoo xam ne li tax ñemewu ñoo takk soxna mooy jàpp nañ ni bu ñu takkee soxna dañuy dellu gannaaw boo waxee ñu naan kër ga amul dara nangam nangam bu ma takkee jabar charge yi fii nangam nangam yàlla nee na in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi sunu borom nee boo nekkee pauvre yoroo dara ba takk jabar ngir jaamu yàlla sunu borom nee na damay gën a ubbi mbir loolu war naa tax célibataire yépp fas jom réew mi nag célibataire yee tax tàngaay bi yokk célibataire yee tax dëkk bi amatul ngelaw parce que li ñi ëpp ci jigéen ñi ay célibataire lañ góor ñi waxi nopp kon nag yokk xeetu Seyduna Muhammad war naa tax ku nekk jaayante pour takk soxna. ah oustaz mi ngi xas célibataire yi ñenn célibataire yee fi indi yooyu yëpp. Oustaz li nga wax dégg nañ ko waaye Oustaz dañuy gis ne góor ñi jigéen ñi dëggala nañ say bi am na retard waaye ñoomit ñu ngi maanaam def li nga xamante ne moom la ñu génn relation yu bëri na waaye est-ce que tamit taxaw doo taxaw seetlu yaakaar ne góor ñi aussi ñoom it am nañ si ngantam part de responsabilité parce que mënoo topp jigéen ay ati at te doo ko takk. waa xam nga yaakaar naa ki ful la tax a jóg bu fekkee ful la rek ko tax a jóg bu àndeek yow atum yàlla war naa mën a def farata. guddal gu bari gi moom li muy indi rek mooy ñu bàyyi la fi seeti sa morom da nga koy gis léeg-léeg nga gis góor gu toog naan daf ma wor booy bi maak moom depuis 2014 2014 ba léegi kuy toog di la xaar mais am na loo xam ni boo ko diggee nit ki te defoo ko te jigéen dafa jigéen am na jigéen ñoom dañuy xalaat bu nu gisee ki ñuy bëgganteel xam na nañu ban décision la jël ci ñoom ki nar a takk ak ki narta takk boo fooweewul sa xel mi xam nga ko ki nar a takk ak ki nar a takk ba fayewul sa xel mi yow mbokk war nga ko mën a xam ñun soxna yi kon ñoom moom wax jooju waaye oustaz góor ñi yenn saa yi dañ naan jigéen ñi dañoo matérialiste li ñu gëm ak li ñu lay wax du benn. loolu am na parce que jamono dafa changé boo xoolee léegi jamono bii ñu toll jigéen ñu ci bari alal la ñu visé seen bët bi pour sëy ku amul alal du ñu sëy ak yow bu njëkk da nga daan ñëw ci koñ fekk fa jigéen joo xam ni na mu yiwee ëpp na am ñëpp jàmm. bis bu xewle xam nga Sénégal ngay gis Sénégal rek ngay gis jigéen ju dëkk ci koñ am xew gisoo fa benn moroomam parce que da ngay dëkk ci koñ. nekk jigéen teg sa bopp foo àggul di bang bangi ci kaw nit ñi jàpp ni nit ñi ay chaise lañ boo xewlee da nga leen di luyee déedéet fii ku fi duggantewul ak nit ñi bis boo amee xew da ko wéete da gis ñu bari ñu dëkk ci koñ di jaay affaire di jaay la classe di jaay tubaabeeg damaa yor iPhone ak damaa yor nangam di jaay jabbi-jabbi bis boo amee xewu jàmm doo gis kenn te doon na gàcce nag nga xew xewle say mbokk dong wër la kon am na noo xam ni boo ni melee boo xewlee gis ñëpp Ah, dañoo bëgg seen bopp nag du question bëgg seen bopp xam nga lu xew teg sa bopp fu la yàlla àgg àggalewul boo dëkkee ci koñ amal ñëpp sa bët bi visé ko ci góor gu am jom ju ragal yàlla ju la mën a yor paaka ngay xool koo xam ni alal ngay seetlu ci moom bis bu ko ñàkkee da nga koy wan gannaaw parce que léegi sëy yu baree baree bari soxna si boo xoolatee day ga divorce yi dafa bari janvier février mars nga dajeek ndaw si ana sëñ bi mu ne delloo naa ko ndeyam ak baayam moo tax may faral di wax ni bépp jigéen bu naan delloo naa ko ndeyam ak baayam nanga nga xam ni delloo nga góor fu miin parce que foofu la jógee mais léegi ñu ci bari toogatuñ ci sëy yi parce que intérêt bi ñu doon seetlu ci ku góor ki buñ ko gisatul dañuy dem xam nga bu fekkente ni bii yow sa bët yi alal dong alal rek nga ko visé am na jigéen ñoo xam ni ay nitu intérêt lañ seen bët bi du wax ak ku amul ñoom ku bañ na ko ba muudu muudu wuy doog a ñibbisi balaa ngaa xëy di nuyu ji say mbokk ñooy njëkk a jéem a xamanteeg yow ñoo lay romb rombalu ça va xàmmeewu ma la woon kañ nga ñëw ci koñ bi nga dëkk fexe ba dugg la fam jigéen ñoo xam ne ñoo rew koronaa dañ lay dugg ngacc la ba nga jeexal ñu wan la gannaaw loolu nag amul amul sens parce que at yaa ngi dem yaa ngi xëy di gën a jëm mag te looy lépp looy def ci lu bon te bàyyiwoo ko bis bu dee ñëwee di ko réccu ah oustaz neena jigeen ñi ñen ci jigeen ñi ngacc goor ñi kon ñom ñoo raw corona waye oustaz tamit eh, jigeen ñi dañoo bëgg lu baax mais yow mi du goor tamit bo ñëw jëss sa alal képp ko jigéen da yaaka na yow borom alal nga. wa lool nak amna parce que amna na ñoo xam seen naturel duñ ko wané li nuy wané nekkul ci ñom xam nga ñëw jëndal jigeen téléphone 1 million nga diko tak jox ko cadeau 3 millions mu ñëw sey ci ci kër gi lek sa 1500 wéccat bu mu la warona jox nga aalu ci kawam may gu njëkk ji yàlla taxul woon bu yàlla taxee ki maye woon un million bu ñu ko lekkalee deux mille du kaas mais da ngay gis naxante bi problème bi yëpp li ko indi mooy ñàkk waxante dëgg bi am ci ci ci ci couple yi avant takkante di am Sénégal nanu bàyyi sëy yi ñuy maslaa sëyu mbokk yaa ngi nii di tas mbokk gi di yàqu li ko indi mooy maslaa rek diw sa doomu bàjjan la diw du génn famille bi diw ñun suñ famille nangam nangam ñaar ñu bëggantewul génnuñu xamantewuñ miinantewuñ ñu xëy xëy boole leen fi jamono toll mais du dem miinante woo leen xamante woo koo fi gis mu téye soxnaam daa dund ak moom lu yàgg yàgg dugg ligne yónnee liiñ ba tas dugal ligne bay bëgg dee yàgg envoyé xaalis bay bëgg dee do yow da ngaa dugal a ligne dugal a ligne ba li nga dugal ci ay ligne kenn xamul lu mu toll. kooku boo xoolee buñ ko mayee kii day mën a sëy ak moom parce que dañoo yàgg dañoo xamante dañoo jaar fu nekk xuloon nañ bàyyante àndaat rayante xeex àndaat. ñooñu seen sëy en général lu mu yàgg yàgg yàgg du mas a tas mais sëy yi ngay gis en général ñuy gaaw a tas gépp sa doom bàjjan mënoo ko fee bàyyi itali la nekk ñibbisi na jabar la bëgg tey lay waxtaan si su ma ñëw naa tey suba lañ lay may ñëw ci kër gi tey ñu ne suba yónneel koo xam ni miinoo ko xamoo ko mais boo ñëwee du ngeen seen du ngeen mën a composer yéen ñaar te fekk ndaw si am na ko mu joxoon xolam avant jigéen ki mu njëkk bëgg pour mu bàyyi ko day difficile ki mu njëkk xam pour mu bàyyi ko dana difficile comme la joxoñ ni la kii laa bëgg boo bëggee jàmm may ko ko sinon da nga ko dugal ci ay bàkkaar. ki mu jigéen ki nga xam ne moom la bëgg yaakaar naa ne soo ko ko mayul da nga ko dugal si ay tooxi na waaye bëri na si góor ñi sama càmmeñ ñu baal ma tamit mais nga gis jigéen mu bëgg ñu bëgg ka mu jaral leen lu ne ku jigéen nga toog di leen xaar waaye ñoom dañ naan amagu maak néeg laa am ak dugg na fi gën a ñooñu góor lan leen di li ma leen di wax mooy yàlla moo yor ñëpp ku ci gis ni am na koy bëgg bu ñàkk am foo ko def tax nga bañ a takk jaamul yàlla te xam ne say jaamu yàlla la nga takk te bàyyeek sa bopp yàlla te sabablu xam nga takk jabar ba pare nag di yeewu mi di naan dëkk bi doxul kenn waxu ko boo takkee da ngay wuti liggéey boo doon jaayi matt nga xëy jaayi matt sabablul daal pour ñu xam ne yaa ngi def effort pour góor góorlu bu ko defee balaa yàgg yàlla ubbi la sunu borom ku yaatu ku yaatu ku yaatu wërsëg la te ku mën a dimbali doomu aadama la te wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbuhu yàlla ku ko bàyyeek sa bopp doo sonn doo jaaxle parce que nag moo yor ñëpp kuy dox ci kaw suuf la ngay dundee yàlla la koy jox wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha kuy dukkat la nga war a am yàlla la koy jox kon na nit ñi gëm yàlla ku nekk kay sa wërsëg nga ànd ak moom te yàlla tax te ñu bàyyi gaafalante bi senegal danoo mën a gaafal nit bàyyi leen góor gu fi takk jabar nekk ci ay tolof tolof ñu ne jabar jëm takka tax. saa insister foofu gaafal googu noonu. mais nanu bàyyi gaafal bi da ngay gis ku takk sa soxna nekk ci ay tolof tolof ñu ne ndaw see ko teg nga takk jabar daawoo dugg jakarta dugg jakarta mu këpp ñu ne jabar ji la. nga takk jabar di tukki réew ma neexul at mi nga tukkee ñu ne jabar ji la mais Sénégal ngay gis ñu gaafal jigéen ba bu jigéen judduwaalee soox sax ñu ne gaaf la ku ko takk da ngay ubbu. lu ndaw ñu bëgg cee gaafal jigéen senegal ngay gis kunu gaafal ba kenn mënu la ko wax takk takk jabar feebar dab la ñu ne ndaw si la takk jabar sa génn àdduna ci même semaine bi ne jabar ji la takk jabar sa rakk génn àdduna ñu ne ñu jabar ji la takk jabar nga taal sondeel fàtte koo fay néeg ba lakk ñu ne jabar ji la gaaf gu bon la moom gaafu lakk la am moom ci réew mi rek la am sunu boroom fa muy dogalee jaam àggu fa la yàllay dogal jaam tuuti na pour soppi ko nit dafay gëm yàlla wóolu yàlla waaye senegal ngay gis ñoo xam ne dañuy mbubboo ni gëm nañu yàlla te gëmuñu yàlla parce que ñàkk gëm yàllaa tax lu la dal nga jàpp ni nit a la ko teg boo xëyee di génn koo dajal jàpp ni doo am bëgg booy xëy doo dajeeg kenn nit ñi di xëy nga ne doo dajeeg nit mais loolu kenn mënu koo wax di moytu di ñàkk gëm yàlla am na ñoo xam ne bu nu xëyoon bay waaj àgg fàtte seen doom ba dañuy dëppaat am ñoo xam ne buñ fàttee sangoo saafara si ñu leen waxoon dañuy dëppaat am ñoo xam ne bu ñuy dem ci xew lu ne la ñuy sangoo lu ne la ñuy raayoo dem ba ñàkk gëm yàlla lu ne nga dugg ci mais réew mi dafa changé nit ñi ñoo gëmatul yàlla ci façon yépp nag ku ci ne na la yàlla def na la neex. lan ngay dénk jeunesse bi. jërëjëf euh, soxna Ami Ñing maa ngi am mbégte lool bokk ak yow émission di ñaan Safina FM yàlla ko yàlla gën a barkeel. Euh, tele la bu am solo boo xam ne mu ngi ci yoon te li ñuy séentu ci télé yëpp ñu ngi koy séentu ci Safina FM macha allah muy télé boo xam ni boo dee déglu rajo bi ay borom xam-xam ñoo fa nekk nekk ay jàmbaar euh, ñaan yàlla yàlla ko yàlla barkeel. li may dénkaane rek mooy nanu delluwaat ci yàlla te jaamu ko te xam ni wàccee wunu ci àdduna moom yàlla lu dul ñu jaamu ko jéem a laabal xol yi bëggante di jéllale tey jéggale lu waaye ëppalee nit dimbali ko te yàlla tax. ku la tooñ nga baal ko jéem a jox sa bopp yàlla balaa ñu laa jox yàlla maa ngi ñaanal mboolem téléspectateur boo xam ne mi ngi seetaan Safina FM di ñaan yàlla émission bi yàlla na ko yàlla barkeel yàlla na nu bokkaat yeneen i yeneen yeneen i plateau incha allahu taala ta sax noonu lay demee maa ngi ziyaare ñëpp di bége ñëpp di nuyu maa Fall di nuy waa Safina FM Oustaz Pape Makhtar Sylla asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu aleykum asalaam rahmatullahi taala barakaatu oustaz ñun tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax si sa disponibilité sa yaatuwaay sa dal li nga ñu defal ni mën naa ne yombul waaye alhamdulilah rabbil alamin nekk nga koo xamante ne la ma waxoon te commencement ba moom oustaz Modou Fall kenn la ci société bi mu nekk ku disponible koo xamante ne dara yittalu ko lu dul Sénégal jëm kanam na jeunesse yi ndax dañu naan jeunesse su Sénégal moom moo war a réew mi ëllëg te yaakaar oustaz ku koy bàyyi xel di ko déglu euh, mën naan di nga si yoon boo xamante ne dina stable alhamdulilah rabbil alamin di nga ko wax ndax bàyyiwul kenn côté bu nekk nag mu ngi fay jaar ngir lan jeunesse yi mën a tegu ci di bàyyi xel saa su koy a baax ni ma koy waxee saa su nekk rek di bu baax baax ki nga xamante ne moom mooy sama caméraman bi di petit ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ñaanal tamit Haj Mansour di ñaanal bu baax tamit ki nga xamante ne moo jaar fi sañse bi ni ma koy waxee saa su euh, dangu Pomba Joob ku fa dem rek mu defal la nii moo génn fii fu baax fii di ko ko jaajëfal bu baax a baax di leen wax ni lii ma nekkoon seen émission si wàllu sëy ngeen ànd ko ak euh, soxna Amy Gningue ak euh, Oustaz ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje fan ñu gàtt fi si biir Safina TV jërë ngeen jëf